kon boo demee tamit ci assemblée bi mais c'est le président de la république en tant que chef de parti moom mooy jël bigam ne dugal naa Salimata dugal naa ko Kona dugal naa ma Samba dugal naa ma ba ci liste bi léegi liste boobu noonu moom mooy dem compétir léegi sénégalais yi avant ñoo tànn mais président bi dafa tànn ba pare ñun ci tànnitu président ci la ñuy tànn il faut ñu xam ni sunu député yii tey dafa président bi moo tànn ba pare ñun ñuy doog a tànn soo demee askan bi seen leader ba moo tànn ba pare ñun ñuy doog a tànn. kon dalay leen ni ñoom opposition bi des fois bu waree def lu askan bi bëgg day xool partem ba pare. parce que leaderu parti ba moom moo ko tax mu accéder tey ca assemblée ba askan bi di ko gis ba di ko fal moo tax façon bi ñuy falee député yi tax na député yi mënuñu nekk député du peuple dañuy nekk député d'un parti politique ou bien d'un leader politique te boo xoolee depuis boobu ba tey gis nga ni député du peuple amuñu ko à part Guy Marius benn député ah man de moom laa xam benn député du peuple laa jàpp depuis Sénégal ba mu amee ba tey muy Guy Marius Sagna nga xam ni weeru koor dafa jot ñu yëkkati ay 100000 100000 di ko jox député yi te ñu tëj assemblée bi te assemblée bi jafe-jafe askan bi ñoo tax ñu ubbi ko sénégalais yi nekk ci ay jafe-jafe ñu tëj assemblée bi ngir bëgg-bëgg Macky sàll ba pare weeru koor jot ñu leen di séddale cent mille cent mille jamono yooyu sénégalais yi ñu ngi souffrir te dañ leen a pour ñu toog ci assemblée ba wax jafe-jafe askan bi sal yi rom jot ñu leen di séddale ay billet ay billet rom màkka bu jotee yi dañ leen koy séddale ci alalu Sénégal te ñu ngi tëj assemblée bi te Sénégal gépp xam nañ ne assemblée bi waruñu koo tëj parce que defuñu woon assemblée fal def élection def ci ay milliards pour ñuy tëj assemblée bi dañ ko war a ibbi parce que assemblée bi dafa war a liggéey te ku liggéeyul waroo fayeeku mais seul Guy Marius Sagna moo génn dénoncé lu mel noonu te pourtant ay privilège am la ay bu ko neexoon jël ko nopp comme ñëpp ne mig mm. kon donc su ma jàppee ni assemblée bi li tax mënuñoo am député du peuple parce que ni ñuy falee député yi c'est le président de la république moom mooy tànn ba noppi sénégalais yi doo ko tànn ci biir tànnam moo tax député yi avant nga gis député bu toog assemblée ne la man député Macky Sall laa wala man député Abdoulaye Wade laa parce que bi mu demee ba mën a bokk ci député Macky Sall moo xam turam bind ko moo tax mu mën a bokk. mais ñoom loolu la ñuy wax à chaque fois. moo tax y a pas la séparation des pouvoirs encore mm-hmm. une ba tey encore une fois le président de la république. mooy l'exécutif moo am mainmise ci biir majorité assemblée bi moo waral boobu ba tey loi bi askan wi bëgg exemple góor jigéen yi sénégalais yëpp nee nañ bëgguñu góor jigéen Salimata sénégalais yëpp à quatre-vingt-dix pour cent ou bien ça je peux dire à <laughs> parce que à cent pour cent parce que quatre-vingt-quinze pour cent de musulmans la ñu wax cinq pour cent de chrétiens muy diine musulman muy diine christianisme mm-hmm. amul lenn lu ci approuvé li nga xam ne mooy euh, góor jigéen mm-hmm. mais nag ci biir suñu constitution acte contre nature la ko dérivé mm-hmm. acte peut-être faisait en maanaam acte contre nature fait en public. en mhm. il faut que euh, notre constitution du Sénégal n'a mhm. pas mentionné l'homosexualité dafa ne acte contre nature ba pare nga def ko ci mbooloo. kon góor jigéen mën nga kaa tuddee acte contre nature mën na kaa bañ a doon ba pare nag nga def ko ci mbooloo kon ñu nee nañ ko criminaliser pendant des années ay sénégalais ay kilifa diine mhm. ñu ne jub nañ signé wax ne nañu criminaliser homosexualité benn minorité de cinq députés euh, huit députés yoo xam ne ñoo ngi bokk ci Benno Bokk Yaakaar Euh, kii bokk na ci euh, Diouf saar bokk na ci mu Amadou maam Diop mii bokk na ci ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ca biir ñu ca biir mbir ma nee nañ duñ ko sax jàllale déjà plénière léegi nag li tax loolu mën a am sénégalais yi di fal député dañuy dem sax peut-être ba am majorité assemblée waaye du ñu mën a am li ñu bëgg ci seenum réew ndax dafa am benn exécutif boo xamante ni moom moo am doole bi nga xamante dafa invisible ci kaw assemblée boobu. kon assemblée nationale moom ban sens la amati. merci parce que. da ngay toog nga def autocritique nga ni kon ñun assemblée bi ban intérêt la ñu amal. intérêt te ñu ngi ñu ngi jël suñu milliards yi di leen koy fay. si xoolal dañ ko tëj nii te ñu ngi fayeeku chaque mois. chaque mois waxuma la sax fayeeku mais ña ngay jot ay privilèges. vraiment léegi nag boo demee Chine boo tax ma ne la léegi Chine député yi kenn falu fayu leen da ngay nekk enseignant. wala nekk chercheur war nga nekk baana baana wala nga nekk beneen liggéey. Mhm. nga ñëw porter volontaire ne man damay nekk député pour nekkal sama sama sama askan ca assemblée ba. te loolu mooy li war. te loolu mooy yoon léegi bu looloo est que dina di gis. bu loolu amoon Sénégal di gis ku xeex naan damay nekk. député di ko gis Sénégal man man de dinaa moom laa léegi nag foofu ngay xamee nag kan moo bëgg réew mi ak ku ko bëggul mais yow ah. saay yi élection ah, Sénégal da ngay toog nga xalaat nga ne nekk leen si ker gi ma nekkal leen si naaj sali ku mu jaral xeex xuloo mhm. mais am na lu tax sangum néew bi am na lu ci nekk parce que toog leen seen kër man ma leen di xeexal seen jafe-jafe man ma leen di doxal tëdd loolu mooy député de loolu mooy président pour ma simplifier ko mu gën a yomb ci bopp sénégalais yi mhm. de la république mooy yéen askan bi man de dama leen a bëgg man de damaa bëgg a jaay sama bopp xañ samay priorité ñëw di leen doxal seen bos tëdd leen seen kër doxi leen seen soxla man may xëy ci seen soxla di ci gont lii mooy président de la république définition bu gën a simple <laughs> président du buur du xutbu rabbaan mhm. du xutbul xawsu du jinne du malaaka président de la république moo gën a suufe ci askan wi au contraire su dee ci normal lañ ko teg mooy ki nga xam ni dafa bàyyi soxla yi boppam fàtte ay préoccupation boppam bu njabootam ne yéen askan wi seen bos mooy sama priorité jiital leen ma ma doxal leen seeni soxla yéen ku nekk soo xëyee demal ci say soxla waaye man su ma xëyee sañu maa nekk lu dul ci seeni soxla lii mooy président de la république Salimata lii la lii mooy ministre waaye nag mënuma ko man kese ñu ne ko léegi utal ñu la jàppale lii mooy président mu ne kon man dinaa nommer diw ak mm-hmm. diw ak diw ndax wóolu naa leen ñu ñëw ñu ànd ak ñun ci lan ci liggéeyal leen yéen askan wi ñu ne ba tey de dina am ñu des waaye dinañ la utal ñun askan wi. Mm-hmm. ñoo xam ne dinañ nekk ca assemblée ba it nekkal ñu fa nga xam ne lépp yow loo indi foofu pour mu jàll ndax nit nga kese mën ngaa dee fois bëgg a jàllale loo xam ne sa teeyu bakkan la. Mm-hmm. waaye ñun dinañ def ay garde fou la ci assemblée ba lépp loo fa indi ñu xool ko saytu ko bu fekkee lu baax la mm-hmm. ah ñoom ñoo ñu fa nekkal ndax ñun niñ la falee yow directement. ñun it noonu lañ falee ñooñu directement pour ñooñu it ñuy saytu yow sa liggéey. kon askan bi lii la assemblée nationale di jariñ président moomu ko au contraire la teg président ca palais ba moo teg député ba ca assemblée ba. Mhm. muy la volonté populaire. lii moom mooy justice boo tamit noonu ah man de may président de la république waaye mënumaa doon en même temps di jàpp wala may tëj wala mu ma nekkaat en même temps di garder askan bi. Mhm. kon il faut ñu ut ñoo xam ni ñoom ñoo yor sécurité askan bi la paix intérieure. ñu jël procureur rek et cetera juge magistrat. ne leen yéen yéen yéen a yor kaaraange réew mi ku nar a dëng ak ku nar jubbantiku même le président de la République parce que nul n'est au-dessus de la loi yéen yéen a fi nekk pour teg ordre ak teg yoon ak règle yi ak loi yi nga xam ne moom lañ teg yéen yéen a koy encadrer ba kenn du ko salfaañe mhm. donte le président de la République est le premier gardien de la constitution léegi kat justice bi moom it loolu moom mooy rôle am léegi Saly est-ce que bu ku nekk defoon sa rôle problème bii dina am tey bañ naan dañuy toog dañuy dialoguer. du am bañ non dama lay laaj est-ce que su assemblée bi digne de son defoon li mu war a def exécutif bi def li mu war a def yem fi mu war a yem justice def lu mu war a def yem fi mu war a yem est mhm. dina jar ñu naan pour ëllëgu Sénégal il faut ñu ñëw toog ak président de la République ñu waxtaan. du am lu kon c'est des avocats ni dañoo échec ci par rapport ak attentes yi askan wi doon xaar ci ñoom en tant que des élus. mooy que bu ñu tegoon lépp ci yoon du soxla ñuy toog ak président pour waxtaan pour mën a trouver des solutions pour jafe-jafe askan wala kii moo war a bokk wala kii du bokk kon day wane ni ay aveu la yuy wane ni ñii nekkuñu lu dul ci seen bopp. Mm-hmm. waaye dafay baax it nga leeral le sénégalais lambda que ni lii mooy état lii mooy rôlu état ginnaaw yàlla ak yonent bi askanu Sénégal képp képp képp ñoom ñoo war a tax ñu nekk ci li ñu war a nekk.